candidat ma ne ko wante dama ànd ak suma mag ñu koy woy xalifa Sall te dañ ko jaay doole maa ngi jóglu nag ci kàddu yi mën nga ci bañ a ànd mën na bañ a doon sa xalaat wante dañ ko jaay doole jaare ko ci politique galgal ko bañ a bokk ma buggoon ñu waxtaanee waat kaawu xalifa Sall ma ne beneen bi tamit mën naa juum maa ngi lay jóglu ci kàddu yi lu la constitution may ci sañ-sañ mooy da ngay organiser élection doo organiser sélection mané ko sélectionneur ñu xaw sax kaf tuuti ko de fi wax Je yalla dama gis suma doomu nday dañ leen ma ñu ci parce que ñom dañu Je suis ko président m'a ngi ci yi parce que xamna do ci d'accord ak man mané ko ci jangat buma am ci constitution yo amo droit am troisième mandat mu ne ak lan ma ko président dama bëggoon ñu waxtan ci fichier bi ak je ne ko dama bëggoon ñu waxtaan ci révision L29 ak L30 bu code électoral mu ne ak lan ko président Sénégal dafa am détenus politiques ñu ngi ci kenn amul benn Sénégalais bu leen plainte yow soo amul détenu politique man lu ma jàpp dafa am détenu politique ñu ñu ko ne ko président mënuñu nekk saay bu Sénégal amee président bu bees ñuy bëgg a nelawal Sénégalais yi wala di bëgg a lëndëmal seen seen xel dañu ne ko teg lu ñuy woy clause d'éternité mooy ba Ilayo Médine bii di deux mandats pour président kenn mëntu ko laalaat <laughs> mu ne ma ah bon mu ne ma yow xam xalaat nga sa gaay yi dinañ nangu waxtaan ci li yëpp ma ne ko président heure bi nii ginnaaw yow ak man ak ñu ma fi indi ak yàlla ñaari nit kese kep rek dong ñoo xamni ma ngi tok fi ak yow ba may duggu jot na leen téléphone té su may gél tamit dina leen wo téléphone kenn ki mi ngi tuddu Khalifa Sall kenn ki mi ngi tuddu Ousmane Sonko mune ma ah bon ma ko waaw ma ko té amna yaaka suñu toogee waxtaan di jubbu mune ma ah bon ko waaw ko parce que président lu may gis ni arrangé wu la arrangé wu mune ma lan nga gis mané ko man luma gis

ne que mon ça fait pas sérieux tu es informé en amont pendant et en aval les Sénégalais nous connaissent moi j'ai 18 ans d'actif sur ma carrière politique j'ai jamais été pris à défaut de déloyauté ou d'infidélité ou de trahison je suis un pur produit de l'opposition politique sénégalaise et je ne suis pas candidat à l'élection présidentielle quel est l'intérêt que j'ai donc tey alors il semble que Souma Khalid Ousmane mu ne waaw dama ko que Macky daf Mané, que Ben juge Pastef moo ko jugé je ma lan nag xaw ko waxee mais Ousmane <laughs> moom xam que ni que su nekkoon juge Pastef du ko 200 millions amende moom xam na ko te man lu ma seq ci waxtaan ak président Macky Sall munuma ko fësal du suma cër lu ma ci noroon wax ak Ousmane Sonko wax naa ko ak Ousmane Sonko féetoo na boor lu ma noroon wax Khalifa Sall wax naa leen ko te ñoom ñaar ñëpp kenn ci ñoom ñaar ils étaient pas opposés au dialogue yow ku dem ba ne la d'accord naa jokko ak kii téléphone ñu saafonte mais kooku sax il est d'accord pour le dialogue je ne vois pas aujourd'hui où se trouve le euh, où se trouve le problème lu tax nit ñi diñu bëgg a dëkkaloo fu ñu dëkkul diñu ñu xas di ñu ak diñu bëgg mais mais ak diñu bëgg a ak tamit di bëgg manipuler askan wi duñ ko nangu non duñ ko nangu ñun du ay muuma maa ngi jégalu nag ci kàddu yi parce que muuma moom nattu bu la yàlla teg nit ñun duñu nous avons une bouche pour parler hein une tête pour réfléchir et nous sommes assez courageux pour nous défendre maintenant chacun assumera ses responsabilités du moom la ngay woote on avance en avant rek mais ku nekk assumer ses responsabilités parce que nag nit des dem ba ne la diw mooy suma candidat diw boobu mi ngi tudd Khalifa Ababacar Sall wante su ko yàlla mayulee affaire bu mu mën a bokk man diw laay jàppale en l'occurrence Ousmane Sonko kooku wàccoo na ak yow man kenn gënuma yellool Sénégal candidat élection présidentielle j'ai fait trois mandats à la mairie de Mermont deux mandats à l'Assemblée nationale membre du bureau de l'Assemblée nationale maire de la capitale sénégalaise Je wax que Sénégal nous ñi mën nañ de a ànd nous man que parce que defuma de